Eh, noo ngi sant sunu borom subhanahu wa taala di yeesal sunu taalibe ak sunu jébbalu ak sunu tofel ak sunu mbëggeel ci maulana abdullah wa khadim rasulih sëriñ tuba khadim rasul sallallahu alayhi wa sallam di len nuyu di len siara di len balu xaq te ni ñaan ngeen bal ñu di ñaan sunu borom ci mbaaxam mu defal ñu jàmm defal ñu tawfiq defal ñu ngëneel fajal ñu aajo yi ak raggi yaram yi ak raggi xool yi <coughs> tey nag euh, ma bëgg waxtaan ci ñaari jàngoro te tënk ko ak li koy faj muy jàngoro yi sawlal xale yi nga xam ne dañuy sawlal guddi wala ñu dem ba nekk mag di sawlal nga xam ne mën na indiqué ci ñu mel ni kuy gént dem ca wana wa wala ñu mel ni kuy gént toog ci pot ñu tuddi ko sawlal ba ca des mooy estomac estomac mooy góom yooyu ne ci biir moo xam ci mbaax gi moo xam ci butit yi surtout nag ndax estomac suñ ko waxee ca dëgg-dëgg mooy mbaq gi nga xam ne mooy def ñam gi mbuus googu moo tudd estomac al miqdatu la ko arab di wax moom ni tudd estomac bu amee jàngoro nag bu xoosoo wala mu am ay góom wala mu ñagas waa loolu mooy feebar moom nag mënees na ko yëgee fu nekk waaye mooy fii rek mbuus googu daal tàmbale foofu ba yéeg fii wala ñu bari dañ ko yéegee fii léeg nga di ko yëgee ci digg ginnaaw bi fi tolloog xol bi diggante ñaari mbagg yi mu jàppaloo léeg mu wàcc ci côté càmmooñ gi ci mbagg mi suuf ci poxtaan jëm suuf wala mu laal wet bi ci ginnaaw wala léeg-léeg mu ñu gi day wër rek wàllu ndox yooyu nag ku amee xale boo xam ne day tuur ndox guddi maanaam day sawlal wala mu nekk jigéen dem ba nekk jànq sëy di sawlal wala mu nekk góor dem ba màgg di ko def wala mu dem ba am soxna di ko def su boobaa nag ñaari xeet la am na ci boo xam ne jàngoro la mën naa nekk jàngoro waaye dañ mën naa nekk leneen mën naa rax ala kulli xaal bu mu ci mën a doon rek yi ñu ci wax bokk na ci xam-xam jàngale ci li koy faj mooy lan bu dee man ngaa wut gàggu ganaar yi ganaar ganaaru kër yi gag yooyu ne ci biir soo ko amul nag nga wut gagu ganaaru pondoosi gag-gag la rek waaye gag yi gën nag mooy gag yi nga xam ne ñooy nekk ci yi daq jàpp yi mooy yooyu nga xam ne moom la sëñ ma yi fonk lool macha allah ak mboolem ñi sant loo ak ñi sant jaxate ñi sant siise ñi sant silla ak xumma ak jaane ñoom seen ak sowaare ak njaay euh, gag yooyu da leen koy saafal di leen ko jox taw ñu bañ koo saafe diw saafe ko xal noon rek naka noonu tamit féex féexu ginaar mooy ndañ féex mooy li ci kaw seq yi noonu ñu di leen ko saafal di leen ko jox waaye tamit dara gënu ci sawum xar sawum xar nag nañ ko segg bokk na ci li gën a mën a faj xale buy sawlal sawum xar feex ba am ci kaas fees jàll xent ko boo xëyee jox ko mu naan te bu ko naanee mu mu sori ñëwaat da koy faj ñun bi yore xale faj nañ ci xale yi ci wet googu euh, bu dee nag bokk na tamit nga wut am salaan cari salaan xooj ko xoojal ko koy sawlal da koy dindi waaye yëmu ca même émori sax salaan boobu baax na ci xooj ko di ko naan bu dee xale yi surtout émori yi nga xam ne xale yi dañuy judd rek indaale bu fekente ne dafa rax su subaa da ngay bind ayatul kursi juróom-ñaari yoon def ko saafara jël cati salan wala reele salan xoos ko set tabal ko ci ñu di ko naan te nga dugal sa loxo ci ngunul ginaar tibb lo tibb rek bax nga def ko cawri ñu takk bu de la rax dara mom bokku na ci li fajj sawlal buddi muy xale muy mag muy gor muy jigen muy reenu demu bukki ñu xoojal leen ko ci liitar ñu di ci naan kaas suba bëccëg ngoon da koy faj <clears throat> kawaru gëléem tamit gëléem jigéen bii ci kaw kawar googee ne ci kaw nga xuuf ko def ko cóodu takk ko day faj sawum lal saw guddi ala kulli xaal ginnaaw nag farlu ga ca war ndax xale doo doo ko am muy saw la da nga bàyyi ko noonu war ngaa limité guddi li mu war a naan ak balaa tëdd di dem tuuri ndox ndax nah, ba lo gis da cay fekk loxol borom sunu borom jappal na moye moye yep disponible na waye ni ci kaw nag nga jëfandikoo xel ak xam-xam yor xale muy sawlal su gude mu nan ba mali dem teud te yewu mu tori ndox bu de sawlal barna sawlal yo xam sa du dara xale nan nga ñi nan gudi te duñ tori ndox lo rek koy waral te risim yaram dafa am risim yaram dafa am solo da fi xaba tamal ko lo xamne ne xale bu fekente ne bu ñu wañi li ñi nan te balañu tëri ñu dem tuuri ndox bu rësin bi xasee tàmm loolu amatu problème ñu bàyyi ndox kon nag saa yi tamit di ko bañ bàyyi xel ci wet googu maanaam ñu di ko bàyyi xel te ko ba noonu rek doon naa xale muy saw da nga bàyyi naan balaa tëdd ba màndi te doo ko yeemu tuuri ndox bu dee sawlal loolu rek mën na koo waral te nag bu dee sawlal bari si mu yaram mi tàmm ko système bi mu bàkko day jafe su subaa nag mën nañu jàpp ne lu nekk la te fekk na lool rek la kon loolu laa ci wax ci wet googu mu tënk ko foofu bu dee ci wàllu estomac moom tamit lu yaatu la ci nit ñi am na ci yoon yu bari yu ko mën a faj bokk na ca nga wut ñaari fukki kembi laaj nga bënn ko bën bën yu sew sotti ca liitaru diw ëlif tëj ko lu ba ñaari semaine bu la neexee door koo tàmbali jëfandikoo boo ko jëfandikoo nag ku dugg mag suba teel ku dugg mag ngoon yamul ci faj estomac jangoro jàngoroy res yi nit ñi jambat walu hépatique yi lu ci bax torop la mom yoon woowu do do lek laaj diw gi ngay naan ñaar fukki kemb laaj nga bënd kemb yépp bën bën bam daj nga def ko ci bitel wala siwo jël li tak di sotti ci baye ko semaine dor ko tambali jëfëndiko day faj estomac day faj fia xol yi ngay dégg day faj wàllu hépatique muy feebaru si ak bu mën a doon lu ci baax torop la bokk na ci liy seeyal tamit xeer yi nga xam ne ñooy nekk ci weextan wi te wi ku ne xam ne rôle bi nga xam ne moom lay dox ci wàllu yaramu doomu aadama waaw moom lu baax tamit ñi amee ci ay problème ay euh, rénal wala problème mu saliid yi neer yooyu lu baax torop la wala ñu amee problème mu luy wala ay yah yu met mom diw boobu ku dugg mag suba teel ku dugg mag ngoon bu la neex sax ku dugg mag bëccëg bokk na ci lay fajj estomac manam jëmmi diw olif boobu ñu boole laaj bi nag barewaa yu ñu ragal tay te lu ci am solo la non mako wax waxee koy def ci walu estomac ba tay man nga wut nen bu wolof nen na so xëy jël ci ñaari gàjjan comme ni mel comme dakar non ñaar def ci barada def ci kaas ndox ak genwal baxal ko bam bax nga tegg ko xend ko ndox mom nga xend nga xiin ci mew bayiko 30 minutes ba doora naan def ko suba ngon estomac bu mën doon ba ci insel sax lay wax ba ci gastrique man ko ci kaw nak nga ye estomac di bañ xoram su bari rawat na sugar estomac suukar la gëna bañ kuy faj estomac di lek suukar su bari mënu wër garab bu ñu la mën jox tamit da ngay sonal sa bop kon boy fajj dara da ngay sét seet bañ nga bakku té ñun Sénégal li ñi consommé ci sucre dafa bari kon boy fajj estomac da ngay wañi sucre ndax boko wañi wut dara du waw fu na a waw rek mu tooyalaat ko ndax sucre mu boko ko rek day dem foofa mom bokk ci yaxan toy rek mooy mbiccam lu bax ci nit la nak mom sucre waye nak lu yam kon da ngay wañi sucre nani gas la même chose lek pat yu disi wala yin togge diw nga wañu ko diw tamit bu du original nga bako su dee kefe na yam bu yamee du yak dara te tangal ba jaar yon waxuma na kefe ko jot ci mbedd bi nak nan kefe dama aw fam am aw tàngaleen xëy na ci ñew ci njariñul kefe ak yi fajj surtout ci walu cancer yi nag canceru veine canceru foie canceru Euh, kër mooy xol ak res cancer prostate yooyu la café gën a mën a faj waaye ne ci naka lañ koy naane ak naka lañ koy tàngale foofu la mbir ma nekk danañ ci ñëw beneen yoon moom kafe waaw kon café lu baax la waaye mu yem bokk na ci estomac bañ naan café bu bari wala warga wu bari parce que yooyu dañu am dosage caféine ak yeneen bokk na ci yiy faj estomac kon wàll googu ma wax ci wàllu nennat bi ak niñ koy naanee